Oustaz Iran Ndao ñu ngi lay nuyu. ñu leen di ñu gis eh, tey libéré nañ Taib Socé ngeen def ay jéego yu am solo def téléthon nga jëli ko tey indi ko këram lu waral tànk yooyu. waaw xam nga Taib Socé day kenn ci lislaam bi di kenn ci nitu daara yi di kenn ci borom xam-xam yi donk bu yàlla dogalee natt mu dal ko ñun li ñuy oote bu dee dëgg la. dañoo war a dem taxaw ba mu génn moo taxoon ñu def téléthon bi yàlla suturaal ñu ci ba liñ ci bëggoon yëpp ñu am ko ci cent million lañ ko laajoon te buñ ko laajoon deux cent millions ñu joxe ko buñ ko laajoon lu ko ñu joxe ko parce que moom jaar na ko te njabootu yonent bi la njabootu alquran la njabootu diine la mais ñu sant nag ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqaloon muy ñoom faadal ñoom maam Maxtaar kii magu Tayib la. Eh, ñu am taxawaay yu rafet ba yàlla dogal tayib génn tey eh, tey la ñu xëyoon dem eh, sànq lay doog a génn ñëw ñu indi ko këram ndax loolu moo jaadu ñu sant ci yàlla bu baax sant àdduna bi yëpp nag ndax mën naa ni génnu tayib ñëpp a ci participer ñëpp a ci participer yéen ci dëkk bi ngeen ne yéen a ngi seen site gis ngeen ni mu doon déroulé ak yéeni bi ci ni ñi am amul kenn ko xamne ne contesté nga wala nga ni li warul mana nek ñepp andando am yene bi donc lool bu ko yalla defee nak dañu sante suñu borom mais sante nak bu gan Gueye dani parce que liñu def ci téléthon bi dajalé ko su fekkonté né joxuñu teleem am naa yaakaar ne ñun mënuñu dox lepp li maam Matar wax légui ci biir néna na buñ ko bëggono dox ñun ñepp dootuñu dese ay dal wala sax dootuñu dese ay tank ndax euh, fi télé mëna yegg lii may wax ak yéen fi mu toll Dakar euh, bës xaw ma lii may wax ak yéen bala maa yegg dakaar adduna bi jot est ce que man fi mu ne mën naa balaa jant bi sa adduna ma yegg fa ne mënul nekk parce que alquran waxoon na ko wala xad wasalna lahumul xawla laallahum yatazakkaroon jamono dinañ ñëw ngeen am jumtuwaay boo xam ne da ngay toog ci sa biir néeg wax li ngay wax adduna bi yëpp jot ci booba xamuñu woon ne site internet lay doon xamuñu woon ne téléphone lay doon. avons télévision lay doon radio lay doon donc lolu ñu sant ci Bougane bu baax ndax mom mi ñu may ñu def franchement am nañ ci 15 millions cinq alors euh, mu nekk euh, samedi dimanche lundi mardi parce que ñun par mardi mardi ba am millions waaw ci samedi ak mardi millions bon ñuy wuti sam deuxième téléthon ba nekk la sept avant ñu fay daje am nañ 62 millions bi ñu defee téléthon bi mu jaar am nañ 78 millions léegi ñu war a daje mardi ba bi ñu daje mardi ba ci lañ am cent millions yàlla sotti lépp kon donc mbir mi ni mu doon dawee dafa nekk daween bu jaar yoon eh, nekk lu kéemaane tey ba ngi koy wax nee na mbir mi miracle la ci moom même juge bi wax na ma ko même kii avocat yi nekkoon fu wax nañ ma ko. mbir mi dafa leen jaaxal même sénégalais yu bëri autorités yi jaaxal na leen parce que boo seetee defal nañ fi téléthon ñu bëri boo xam ne man fekkee naa ko suñu papa booy bambara defal nañ ko euh, téléthon am ñu ko suivre defe na amul vingt millions wala sax amul dix millions donc lii moom yàlla moo ci jàpp waaye nag xam nga yàlla mënut a far ñi nekk ci caaxaan di bàyyi ñu nekk ci dëgg parce que bu dëgg amul lii buñ ci jógee dëgg day perte yeneen bi bi mu demee xare badar te yéeféer yi bari doole dafa tàll loxoom ñaan yàlla ne ko soo fexee ba ñu gañe ñii rey leen jeexal nga ñii rek nga dese ñaan ci ñaan gu métti yàlla def yàlla wàcceel ko juróomi junniy malaayika ñu ànd ak ñetti téeméer fukk ak ñetti nit yi ñu àndal ñu song xare bi keroog dañoo rey ñii dàq ñi waaye mooy lii tey bu fekkoon ñun def nañ téléthon yàlla dogalul ñu am ci ndam kon ku xeeboon daara da nga ko gën a xeeb ku ko contrôle da nga ko gën a contre ku ko bañoon da nga ko gën a bañ waaye li ab Pape Ablaye Mbaye Peex wax ne ma ah danañ leen bàyyi xel nag ndax fooguñu woon lii te wax na dëgg gouvernement bi nguur gi bu ko jéemoon du dem ah parce que mbën na am na fi téléthon fi ñu fekkee nañu loolu li ci buggaan génn ci alal gisuma benn télé bu ko génne alors que loolu kon bu fekkente ne eh, ñun def ne Birmanie am na fi waaw lu ci ne am na fi mais bu tey bii moom kéemaan la amul weer seize jours la am fukki fan ak juróom-ñaar waaw fukk juróom-benn la am ci ay fan cent million yi mat waaw donc loolu defe naa ne buñ jamaatoon weer mën nañ am milliard waaw. si noonu ba oustaz Tayib génnee jàkkaarloog yéen ñu ko doon doxal tànk yu baax yooyu naka la réagir. waaw tey moom euh, dafa kontaan kontaan. ba kenn mënu ko misaal eh, maak Fadel rek eh, ma ne ko tey moom ni mu kontaan def def na fa téeméeri conférence ndax groupe bu ne waxtaana na leen bu paree daw ca bee dafa mu mujj ne leen soo fekkee génnewu leen man fii laay jaaree ñibi man noonu leen ci damay ñibi waaw bég torop torop torop lu ne wax na ko fa waaw ñun itam ñu kontaan man ba bi ñuy génn dugg sama oto gëw ma ne danañ ko bàyyi parce que man dama gaawul a gëm dara moom Fadel mii ne naa ko mais Fadel est que mbir mi dara laxasuwu ci mu ne monsieur Ibrahima dara laxasuwu ci yëfu yoon moo moo gaawoo rek ma ne ko ah jox leen xaalis bi ba pare man gisatuma ñama jox xaalis ba gisatuma tayib ah waaw ñun fu ñu jëm kon <laughs> mu ne waaye dara laxasuwu ci même pas dix minutes ñu woo ñu ne ñëw leen dugg si ñu dugg si xaar tey mu génn ak ay bagages def ci otoom ñu ànd ak moom gars yi di ko interview ñu ne ko non. parce que bu mu wax dara yéen ñu ñaan leen bu leen ko laaj dara su ngeen pare ñun ngeen dem moo gën parce que ñu organiser wu ndax moom it bu fi jógee war na waxtaan ak Sénégal yi gërëm leen gërëm adduna bi ndax lii yombul kii magam la kii magam la bu ci desoon tey mën na fa am téeméeri fu muy jëlee cent millions ñii ay jigéenam lañu soxnaa ma nga ne kii fu muy lijjantee cent millions xanaa day dem tay la boppam jo pour tey génn. waaw ah, kon bu tey génne mu muy def ba taayee ko ñëw donc lépp bu ci ne jafe-jafe la waaye yàlla def tàggatal dama wax naa ci sumay waxtaan naa leen am na ñaar benn yaayam ku baax la wala am na lu mu defal yàlla defe naa dégg ngeen ko yéen ñëpp waaw yaayam baax na wala liggéey li mu liggéey yàlla am na lu ko ci yàlla nangul donc loolu sant yàlla la moo tax ñun bi mu génnee ñun ñoo gën a kontaan euh, tayib parce que ñun dañu jàpp ne comme ñun ñooy prisonniers yi a ah, ñun loolu la ñu jàppoon ñu ko gisee danu bég bi mu génnee ñu bég yoon wi yëpp dañ ko bég kii daal lañ doon jëw ci yoon wi di wax xolam bu rafet ak euh, tayim ni nitu kese la ñun daal moom lañ doon jëw ci oto bi franchement kii mooy faadal nag wax dëgg yàlla di dajale xaalis bëri dama koy woo guddi yónnee ko vocal xuloo moom mais xol bee rafet daf may tontu rek Cheikh Ibrahim ah ñoo bokk yéene rek incha allah yàlla baax na maa ngi fekk 2 millions. ma yónnee la ko ma ne ko waaw baax na ku baax a ngi nii ku rafet xol kii ku baax ku rafet xol franchement dañ koy jom mataa du ko weddi ak tayib mii tayib ne nitu kese li man léeg-léeg ma oo ko dal ci kawam dal ci kawam mais loolu baax na mu jàppale ñu bu baax nag moom àndul ak ñun ci wax kese vraiment dafa boole wax ak jëf u Alioune Sall aussi la même chose waaw boole wax ak jëf ñoom Moussa ñoom Adama xarit bu ñu am dem nañ ca lu mu mën mu def ko ci fi mu ne ñoom ñëpp maam Adama Gueye mi maam Makhtar euh, maire euh, Dakar Plateau euh, muy Alioune Ndoye ba mu ñëwee def ko ne dama bëggoon dem ci Iran waaye gannaaw yooyu adjoint am ma jox ko benn yoon <laughs> waaw ma jox la ko benn yoon donc mbir mi man jàmm ji ci am rek moo ma neex gis lu mel nii faadal xaalis bi du miracle xam nga luy miracle ñu bokk ba mu jeex te site internet waxuñ ne nangam xew na ci gaa yaa ngay xëccoo xam nga li ma lay wax yow caméraman waaw amu leen benn porox ndoll te ñi ñaa ngi ko doon xaar sa c'est sûr que ni ñu ngi ko doon xaar mais ba léegi amuleen leen porox ndoll ti cent millions sa waay dajale xaar ci Sénégal gi ak ni Sénégal bindoo nga def lu ni mel te déggoo benn porox ndoll gaa yi xuloo nañu Iran gedd na ku ñuy wax Fadala def lii ku ñuy wax Mame def na lii mais disoo dara loolu rek mooy kéemaan te gis nga ba tàyyi ay dix millions nit ñi di ci xeex cinq bi ñuy commencé ñu ngi may nettali koo xam ne xaw ma dañ ko doon laajal foom mu mujj ak ñoom gendarmerie wala police ndaw sa ah te euh, ay ay cinq cent mille ñun ñu dem ba ci cent millions mënu leen a jeex fenn ba gis lu ngeen wax daara amu leen ko ba fii ma taxaw amu leen dara te du ngeen am dara incha allah asalaamaaleykum ok